mais malheureusement c'était c'est des attitudes qui nous dans notre culture jàngaluñu ko et souvent on le dit ñii ñuy def suñu psychologue mooy soit euh, koo xam ne xëy na xarit la wóolu nañ ko torop mm-hmm. wala soit koo xam ne moo nuy seetal di nu ñaanal euh, te te souvent parfois seet gi sax mën na bañ a dëppoo ak la réalité de faits mais c'est juste foofu ngay jafandu parce que foofu ngay am mm-hmm. moyen expression moo lay soulager donc euh, vraiment ñu gën a taxaw ci ab aspect psychologique yooyu gën a bàyyi xel ñenn ñi am na ñoo xamante ne aram dofuñu de boo leen toogee di waxtaan ak ñoom ngay xam ne ñi ay kàddu dëgg lañ lay wax mhm. mais malheureusement ils ne sont pas compris et ils ne sont pas écoutés loolu nag moo lay yóbbu ba yenn extrémité yoo xam ne parce que nit am na fu muy toll amatoo benn discours boo mën a def pour delloosi ko parce que kooku dem na ba pare yegg na ci benn niveau boo xam ne c'est trop tard mhm. voilà donc c'est dommage de constater des des situations comme ça et ça fait toujours mal parce que pour man ku mel noonu il avait un grand avenir mhm. euh, ci euh, mu tànn il aurait pu servir continuer à mieux servir li nga xamante ne moom mooy société ak famille am di ma masaw ay mbokkam bu baax a baax a baax a baax et mhm. peut-être que ñu gën a bàyyi xel ci yenn détails yi dina tax daal ñu mën a moytandiku yenn situation yi dem ba muy yegg foo xam ne regret daf fay am fekk le mhm. regret fekk na déjà le mal est déjà fait le mal est déjà fait jërëjëf ajaratu mami daanaka wax nga lépp yow ak ajaratu arab mhm. nekk na lu doy waar aussi ñuy bàyyi xel aussi violence euh, verbale souvent on a tendance mës naa ko fi dégg loolu xaw na yàgg tuuti de benn xale bu euh, xar woon parce que dañ ko doon euh, critiquer ci physique am donc du ñëpp ñoo am un mental d'acier boo xam ne dañuy dékk lépp. ah démb si euh, sur je pense une bés mm-hmm. am na benn élève bu ñu doon wax dañ ko doon traité de dëmm. seen école. moom laa doon wax ma mami ma ne ko c'est des choses yoo xamante ne nii. dafay dafay topp nit. Mhm. dalay dalay sonal bu nekkul sa physique c'est li nga sol wala amoo moyen wala amul cest à mooy li ma gën a lënt bi. Mhm. ci lépp nag dans une famille ku am ak ku amul euh, ki am ay revenu di mën a def ak ki mënul def man dafa am loo xamante ne ni moom laa gëm te noonu lañ ñu yaree. Mhm. maanaam suñu borom bu tegee sa loxo dara wërsëg bi ñeneen ak ñeneen. ci la ko jàllale. loo en fait loolu la ma sama papa gëmloo loolu la ma jàngal loolu la ñu hmm. yare amoo hmm. droit yor benn euh, niveau bi wala nga am benn am-am bi te séddoo si ñeneen parce que wàllu keneen ak keneen ak keneen dañ ko tënk jox la ko boo ñàkkee xelu euh, euh, lekk ko ah, da koy gis hmm. ndax suñu borom moo njëkk a tëral li nga xamante ne noonu la euh, lay wane nan ngay génnee mhm. euh, asaka nan ngay génnee sarax nan ngay génnee li nga xamante ne tamit euh, ci xaalis boo denc sax si banque mhm. at fekk si waat ko mhm. am na ci loo xamante ne waroo ko lekk donc toutes ces choses là c'est des c'est dañ ko teg ci société pour pour ñu dimbalante la pour pour ku ci ku ci wékku rek di nga am li nga xam boo gestoo ci sa ci sa famille sax di nga gis koo xamante ne soxla na soxla na ndimbal cest à tu n'as pas besoin d'être là di affiché wu di wane yenn ñi mhm. parce que yenn itam li Père Sala di wax ñaan dafa metti ki lay mhm. ñaan boo ko mayee mu mu boo ko mayul tam day rus mhm. dëgg la dans les deux cas de figure donc di sóor yooyu noonu di ko bàyyi xel de temps en temps boo amee yenn yi nga mën ci seddu ñooñu moo gën nga leen di xaar ba ñu soxla la ñëw di la di la mm. laaj mais est-ce que xam nga ne arab looloo tax ñu bari d'ailleurs bu ñuy am alal dañuy jékki-jékki ñàkk alal du ñu xam lan moo ko indi day naaw yàlla suñu borom bu la ubbilee benn buntu c'est pour que yow nga góorgóorlu ba au moins nga ubbi ci juróom-ñaari buntu boo ko mënee. mooy ne alal xam nga yàlla sunu borom du la ko may daf la koy dénk. ci ndénkaane boobu nag nga mën a profité jaamu yàlla parce que alal googu fa la seytaane bi ne. jaamu yàlla bi fa la mën a jaar def lu baax gi ci la mën a jaar liggéey sa fii ak sa ëllëg ci la mën a jaar. mi mhm. nga ko mënee am tey noonu nga ko mënee ñàkk suba. del xool boo nekkee ci situation bu difficile je ne sais pas ndax vous à vous les filles ça vous arrive mhm. wala ñi ñuy seetaan parfois moi il m'arrive quand je suis vraiment dans des situations difficiles mais mu metti mu tar mhm. damay jékki-jékki damay ñaan yàlla suñu borom nekk bu dee mës naa def lu baax benn yoon ci sama àdduna ñaan naa la nga wallu ma ci situation bi mhm. te en général quand Dieu règle ce problème là tu as l'impression que justement benn moment benn def boo def acte bu baa sans pour autant yow nga rendre ci compte loolu la yàlla taxawu léeg-léeg booy jànkonteel yenn jafe yi moo tax def lu baax dañu naan metti na dans la mesure où def ko benn yoon garaawul waaye dëkk di ko def te xaaroo ci dara looloo metti parce que def de manière désintéressée def te yàlla tax parce que sa famille da koo soxla parce que sa mbokk da ko soxla wala nit koo xam ne sax yaakaar na ci ngoone Saliou te xamul ngoone Saliou Ngoné di def te yàlla rek a tax wala Nabou di def wala Aram wala ñi ñuy seetaan moo tax gis nga mbaax nañ ci góor góorlu te euh, mbaax gi yemul rek ci alal gi mbaax gi itam mu ngi ci accompagnement bi ngay nekk accompagnement intellectuel psychologique bi ngay nekk mu ngi nekk ci nga jàppale ci sa doole ci li nga mën mu ngi nekk ci ci li nga am euh, rek ci li nga am tout simplement tout simplement noonee la la yàlla di walloo ci yenn situation ci li ngay liggéey ah léeg-léeg ci xam-xam bi nga am générosité bi nga ciy àndal euh, yow ba yaatul rek ah mënal mënal mënal partager sànq li nga doon wax maam yi mooy ku ku euh, ku benn doy suñu borom jox la fukk da laa séddalelu te loolu souvent da ngay dégg olof yi di ko di ko di mm-hmm. ko wax buñ la joxee fukk rek koo xam ne benn kott doy na la ñu jox la fukk rek c'est parce que tu dois partager tu dois donner donc nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax di bàyyiwaat euh, xel ñi nga xam ne ñoom la ñuy nekkal tout temps di xool seen état mental ah, di leen bàyyi xel léeg-léeg nga nekk ak sax ci kër mu romb la xaw a mer dans ta tête tu te dis ah d'accord man <laughs> ma mel ni nabu bëgg defante. boo ma defee dama lay delloo def nga ma lii dama la koy delloo ba mu bari doole. ak nag te fekk ne kii feebar na bu yàgg te yow xamuloo ci dara dangay xëy dara am après nga ni ah su ma yëgoon te boobu fekk na jëf euh, daal di euh, wees ajaratu ñu daal di jàll ci beneen euh, ponk bi nga xam ne moom nga ñëw indil tey ci cas sur cas cas la famille de Fulbert euh, Sambou réclame euh, justice euh, ginnaaw kàddu yi nga xamante ni Ismaïla Madior yëkkati woon na ko ci benn plateau de télé ñoom nag def nañu sortie yaa ko fi annoncé woon. Mhm. ne dinañ def sortie boo xamante ne dinañ wax li nga xamante ne loolu la gisee situation bi ak fi mu toll. Maby mi ngi koy wax sànq ci revue des titres defoon nañu sortie mais bi par famille bi. Mhm. ñoom ñoo def euh, sortie muy frère ki nga xam ne moom mooy Didier Badji. Mhm. Euh, li ko wundu moom mooy kàddu yooyu nga xam ne ki fi nekkoon ministre de la justice Ismaïla Madior Fall daal dina ko yëkkati ci benn plateau du télé. Mhm. ñoom nag la ñuy sàkku mooy ñu daal di amal ab. Euh, procès boo xam ne dañuy leeral parce que jàpp nañ ne daal dañoo war a leeral li ñuy euh, leen gën a metti nee nañu bokk na ci mutisme bi nga xam ne autorité étatique yi dañu ko amal euh, ci ñi nga xam ne tam moom mooy seen souffrance permanente bi ñu am ndax jàpp nañu depuis que euh, seen frère daal di disparaître amuñu benn information bu jógee ci état du ci commandement de la gendarmerie nationale du ci présidence te itam du ci DIRPA mi nga xam ne moom moo war a communiquer par rapport ak lu ni mel donc ñu jàpp ne nag procureur de la république dafa ubbi ak instruction euh, boo xam ne daal képp koo xam ne xam nga ci wala am na loo ci kii nga wax ci mhm. waaye tam ki nga xam moom mooy Alain Diédhiou secrétaire aux relations avec les organisations de droits de l'homme et des associations de masse du quotidien de gestion des crises Euh, des ressortissants des îles de la Casamance moom it daal na koy wax euh, ci kàddoom yooyu nee na daal euh, famille bi dañu nekk ci désarroi total depuis ñu ñàkk seen ay doom gis nañu ne madame Didier Badji moom itam génn na àdduna mhm. bàyyi njabootam bi jëkkëram gaañoo boobu ba léegi gis nañu xale yaa ngi noonu amatuñu yaay amatuñu papa waaye itam li muy laajte moom mooy ñu daal di ubbi ab enquete leeral ndax démb bi ñuy daje itam gis nañu euh, section euh, sénégalaise Amnesty International ne dinañu ñëw jàppale leen euh, ci xeex bi ñuy xeex ndaxte daal tey jii mbir mi jot am dafa xaw a doy waax keneen itam ku jël kàddu di maître Amadou Diallo bokk ci membre Amnesty International nekk itam avocat bu famille bi moom itam yëkkati na ay kàddu ci lii nga xam ne moom la Ismaïla Madior Fall wax ci plateau de télé boobee daal ne dafa xaw a jeté le flou yi nga xam ne euh, famille bi euh, kenn waxu leen euh, li xew loolu itam daal na ci wax nee na itam daal Ismaïla Madior Fall dañu ko wax déglu ci kàddu yooyee nga xam ne daal dina ko ci wax tiré na si ancien garde des Sceaux muy Ismaïla Madior Fall mi fi nekkoon ci régime bi mais également di invité les autorités judiciaires ñu auditionné ko ndaxte mënut a wax ne euh, lu jëm ci DG Badji ak Fulbert Sambou seen ay mbir mun nañu wax ne euh, amnistie bi euh, daal dina koy dindi daal di xëyaat suba am yeneen kàddu yu mu wax bay wax naan lapsus la ñuy rappelé wu nag ñoom ñaar ñooñi dañu waxoon ne dem nañu ci corniche bi kenn dañu ci gis keke des ba tey kenn gisagu ko tax na itam bi ministre bi waxee ba léegi seen ay famille génne nañu leeral mbir mi fan la toll ndax mi ngi bëgg a yàgg d'accord jërëjëf euh, ajaratu euh, Ngoné euh, am solo lool alors dañuy lay bàyyi rek nga daal di ñuy toppal dara loo xam ne rek ruusee na ci. Mm-hmm. nga daal di ñu koy indiwaatal ci cas sur cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax.